jërë ngeen mbokk yi nga xam ne ñu seetaan Lutte TV ak mbokk yi seetaan yëpp ñu ngi ñëpp di siyaare eh, jox ñëpp seen wàccuwaay mbokk yi nag ñu ngi fi nga xam ni moom mooy Tëngéej te nag ñu ngi kër ñoom Assane Diop muy muy suñu yaay yu baax ñu koy ñaan suñu borom jàng ko fi lool yokku kàttan gi yokku wér waaye bu ñu gisee sama côté ki nga xam ne moom mooy Lo Seck moo fi toog ndeysaan mu bëree ak ki nga xam moom mooy Thiatou Fora diggante ba la ñu génn Yaaram Events moo ko tëggoon moom Yaaram Events ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax ndax dafa def lu rëy ndax Assane si làmb la nekkoon tey nekkatu fi mu koy delluwaat njukkal ci biir làmb loolu te ngay jëpp kontaan nañ ci ak lu làmb gépp kontaan ci waaye ki nga xam ne moom mu jël drapeau bi nag mu loo suuf moom it ndaanaan mu bëree caatu fora daan ko jël bu rëy bu amul benn wérante noonu rek la mënoon demee ndax ki nga bëri drapeau am jàmbaar la jëm la woon bàyyi faa la woon moo tax bi noonu rek waaye ñuy encouragé ki nga xam ne moom mooy Thiatou Fora di ko wax ne làmb noonu la ñaan la mooy dugg waaye benn mooy génn ñu koy ñaanal jàmm bu baax a baax waaye nag champion bi nag tey dafa indi drapeau bi nag ci ki nga xam ne moom mooy Yaye Assane Diop ndeysaan mu def lu rëy def lu am solo ndeysaan moom mbër bi foogoon Assane Diop ba mu jëlee drapeau bi mooy li may njëkk a def indi ko fi nga xam moom mooy tëngee seet si yaayam waxtaan ak moom waxtaan ak ay mbokkam waaw balaa ñuy def da nag ñuy bàyyi ki nga xam ne moom mooy suñu yaay ami Sène mu jël kàddu rek wax ci balaa ñuy jox kenn comme moom mooy kilifa gi te lépp moom la ndax tey lu Assane nekk rek moom moo ko def kon jox kàddu gi yaa am seen ñu ngi lay nuyu di la bu baax a baax a baax a baax. bismillaahi rahmaani bari maa ngi lay fay ko ko am yàlla def mu bëree drapeau mu jël ko ñu koy ñaanal. yaa ngi nekk si ñi nekk si kaw a kaw ndax amuñu fi kenn du wax lu wax ndax yàlla moo ko yore mais dama naan yàlla ko yàlla ñuy ñu nekk fi ñoom Balla ngay nekk si daraja yonente bi da yàlla dina ko defal ndax xale bu am yar na si li ma ko gisee bi ñuy signature ko combat ni ñu ma dama leen di seetaan man da ngay ñaanal yàlla loolu mu bañ si jox ndax nit boo amee cër am yar mm-hmm. yàlla day ànd ak yéen te ko yàlla àndal doo ñàkk dara am na yàlla yëkkati la sa kaw waay. ñu mm-hmm. ba si teral say waajur. Mm-hmm. si darajay yonent bi yàlla na yàlla na ko defal. ñu mm-hmm. ñaan drapeau dégg lu fépp nag daanaka mën añ ci loolu laa lay ñaaxal. yaay tey loo tey kontaan. micro xol bu sedd. ñu ngi gisee ñu dugg si dama kontaan sama xol dafa neex. sama doom daf doon si làmb wàllum làmb da bari si sori yàlla def si li mu si def mu bëggoon ko si loolu doon ko si jàppale doon ko si xaaritam yàlla ñëwee ak ñi mu ñëwee ñu muñ ko lool mais man ba samay doom lañu te man balaay asan dama daan seetaan làmb si góor jox kaw bi ñoom Pape Ousmane Diop ñoom Pape Gamou Gueye ñu nekk ay tout tànk xale Adama Gueye ñi gaañu nga moom dañ leen daan seetaan fii si taat tefes bi ba ndox mi ñëw dañuy tas langa yi daw dem si kaw defaat beneen langa ndax lan guddi ñaari guddi géej gi daf daan fees bu feesee di ñu gis que ñun ñu toog si taatu langa yi ñun ñu dañuy daw ginnaaw bi ñëwee ñu toogaat lamba nekk loo xamante ne nii man daal dama ko dund dafa neex sama doom dugg si mu gën maa neex ma gisee mu ñëw ni dama am kontaan bu rëy bu muy dugg rek mel ni Assane moo dugg sëñ dama kontaan dafa si am cofeel daal neex laa am tey yàlla boo ñàkk ci dara loola nekk si daraja yonent bi ma defal kontaanaas te dëgg naa si. yaay loo koy loo koy ñaax tey monsieur monsieur li ma koy góor mooy mu góorgóorlu di ko dégg fi ñuy dégg wér yëpp te yàlla dina naka defal ndax man fu mu nekk nii man yaayam laa dañ koy jàppale ko mën naa jàppale asam mbër yëpp samay doom lañ nit laay naa tamit di ko ñaanal damaa gis si moom yar mu gën ko ngay wax promoteur bi nga xam ne moo moo waral yëpp. waaw promoteur bi gërëm ko sant ka ndax Assane am na ñaari at si suuf ñu dugg ba presque troisième année a tuddee raadu mu dugg ay lamb laa ba ko si. moom la kontaan si moom loolu. dégg si moom lool te ñaanal yàlla na yàlla taxaw ko nag li ma defal naw te dafay yëkkiwaat sama turu doom kii génn mu neex ma la ma wax ma dem bay gis làmb euh, mu réy na si moom moo gën a moo ko a réy mu toll si moom rek bu mu am si moom man ñu ko defal sama doom si man la ëppee wallaahi azim yàlla moo kontaan si loolu ndax samay bokk ak mag yi asam yi ñëpp dañ see kontaan bëgg si di ko yokk si kaw ñu dégg ba fi dégg promoteur yëpp nag diggante Assane Diop ak Baye yi lan la yaay bi fi nekkee ak bi fi Assane nekkatulee su ma nee su ma nee yàgg rek daanaka wax naa Baye jox yëpp waaw Assane diggante ma Baye loolu ndaw Baye yi ak Assane man mi yaay Assane sax xajuma si dañoo ànd ak moom bokk seen maam maam Cheikh Ibrahima Fall borom Daara di ko mu ngi si yónni ñu ci wax naa ko maa ngi koy waxaat bëgg ko lool Assane weeru ko teroo mm. benn Baye Fall bu jox si ko si weer te ba xam nga si dara. dina defar ay café bu toog ko bu defar ay reer ñaar fukki fan yi si lay defar ay reer moo tax ñu génnee àdduna ba léegi ñaar fukki fan yi toog damay defar ay reer comme ni mu ko daan defee defar benn yóbbu si café yóbbu fépp si xale yi fu ñuy nekkal ñu def loolu ndax man loolu laa gis a jëf ak taxawoo ba kenn moo koy fekk parce que yoonu mbir boobu mu doon dund dama si feer dama ko bëgg ñëpp ay jullit lañ duñ tekkee suñu kanam borom ñu wax ko fu ñu taxaw man sama papa bi ma jur sëriñu daara la woon ak Tijaan la sëñ Mansour la ko juddee fi mu génnee àdduna waaye sëñ Abdou Lahad jiitu na ko daara Touba sept ans ñu sëriñ Aliou Ndoye sama papa Tijaan la mais dafa ay Baay Lahat fokaan yi mu am fii yëpp sol ndax di féddal kóllëre ak Baay Lahat ñun ñëpp ay jullit si yoonu yàlla la jëm bu ñu jekkee nooy bokk fi ñu taxaw amul muus amul Tijaan amul laayeen bi amul ñaseen bi man Assane dama ko nangu woon ak Baye Fallam weeru koor day joxe café day togg ay benn yu joxe Assane day tëgg ba loxaam yi boo ko gisee na bàkk kat la woon daraan bàkk ba loxaam yi su ko tàllalee damay dal ma ko Assane lii nag Assane yow boo géwal mu ñëw man géwal Sëriñ Tuubaa laa loxo yëpp day futtal weeru koor ñëwee ndax dem tey te ñaanal yàlla am lay jógu sama doom jooju yàlla na xëy na kon yàlla bokk si njabootu Seydina ku mu fa fekk ku fa fekk si liggéey yonent bi yàlla bokk si njabootu yonent ba loolu laa ko ñaanal bàyyi faale yi lii nag aw ma seen pay nga asan di dund dañ ko taxawu bi asan génnee àdduna dañ ko taxaw ren boo demee si deuxième année anniversaire yu si coxo bi li may dugg si si si meloon rek dama ko si boobu ba xool xale yi ñu ngi tànk seen ay tànk tànk daane ñaari nag teg ay ginaar togg ay añ togg ay reer fu waay jóge woon dama ñëw loolu man du man maa koy wax sax di ko gis si fu ne samay mbokk dama ko ooyee na ma lii topp Assane leen ni Baye baax kenn du papa ak Modou Faye ak sugu muy taxaw ak yàgg mënu leen lim da ta tax jël risque ñu ngi si mën a jël ñu si des ñëpp tuddee nga leen su ma tuddee ñeent ak mhm. am si loolu ñu jël ñu gis mu réer jii lu ma nee lu si asam man bala may ñëw ma magoo asam bi fekk nañu ñoom taxaw nañ seen taxawaay def ko ba la ñu war a def ba pare. damaa wàcc fi ñaari kàddu ñoom ñu wàcc benn sa tànt la ren di ñaari nag indi te boobu bindoon naa 25 ginaar man aw seen fay. te tey leen gën a taxaw tey leen gën a pressé asam ñu dama leen di ñaanal yàlla yàlla nañu yokk sa kaw ñu dundee ay cent ans laa leen di ñaanal ak wér yàgg taxawee asam di ko defal ñaan loolu laa leen di ñaanal man Baye Fall yi heure boo duggee si ñoom rek gore ay góor lañ ay jullit bu dee Baye Fall nii la Baye Fall dañu war a ñëpp si adduna bi sa ay Baye Fall lañu war a doon ndax ñii ay góor pire lañ lu baax rek laa leen xamal xamal lu ma leen dara bon bu yëfi Assane ñëwee ñu taxaw équité ak yaay booy bu soxna de yaay booy bu def li yaay booy bu def naa ñu lépp ñu war def nañ ko def nga ñuy tënk waaye Fall kenn du moom suñu réew yal na yàlla taxaw ñoom sa taw yaa leen di ñaan jërëjëf jërëjëf yaay boobu léegi balaa ñuy ñëw balaa ñuy ñëw sa waay dañuy ñëw ci mbër bi rek eh, loo loo soog ginnaaw buñ la félicité bu baax ci ndam bi tey lan nga ak kàddu yi nga yëkkati seen asalaamaaleykum. maa ngi nuyu mbooloo mi teew yëpp. di nuyu yaay ji toog. di leen nuyu ñu doon di nuyu tamit ñu àndal ñëpp quoi. di si rek ak yooyu. dafa am yëpp quoi comme loolu. teew ñëpp quoi. waaw tey moom dañu am xol mu tooy. tamit ak yaay fekk ci si rek. day mel yaay bi ñu bàyyi suñu kër ñoom ñoom fekk. te Assane Diop dafa nekkoon jàmbaar. nekk Baye Fall nekk koo xam ne da nga am jom waaw te àdduna nit ki boo amee jom rek ñëpp li muy def quoi ñun tamit ñu nawoon ko torop si loolu waaw doon am tamit euh, yàggal mu koy fi lii quoi gis ñëw ñëw toog yaayam xam nga wala ñëw dab wala mu am bis rek ñëw teew si ba fa yàlla def yàlla ñu jaru tamit daf tey bi nii ñu jëm tamit ak moom tuddee ñu xam moo tax bi ñu tuddee laa ne lii moom suma baxal laa ji teg ak lu mën a xew maa fexe jaayante ba yàlla may moom tam boo mën ne toog sama xam na mën a wax tamit sama yéene si seen kër xam na mën a fekkale tamit sama kër ak moom bu baax a baax a baax a baax waaw liñ ci gën a wax daal mooy que ñaan yàlla fi mu nekk dina ko fa jëlee yàlla xaaral ko àjjana am na daraja bu ëpp daraja bi nga am fuuf te amatu. Mm. xam nga nit gëm na ko siiw fuuf te amatu. na ko mm. alal téeméer gën yoon. te boo ko xoolee dafa mel ni tey jii président dafa jóge. monde entier loo xam ne kenn doon ko fàtte ci loolu. waaw fu si àdduna. tey jii da ngaa kii nii mooy kan. kii nii mooy te mu nekk xale boo ne fi mu doon àgg mm. yaayam tam bi nit ku nit baax. mais ku daw yàlla. waaw kay boo ñu ko aussi. man interview bi li ma si gën a jàpp jàpp rek saa yi ma ko déggee sama yàlla lay daw. dem naan te Assane sama doom la waaye bëgg naa loolu wax boobu bu ma fàtte saa yi ma ko déggee dafa am waaw sama yàlla lay daw quoi ci loolu. xam nga te loolu dafa neex. tey moom moo ko dundal yaayam. waaw nit tey jii nii am na fi sa yaay sax donte du la bañ sax ne mën nga di dégg. mais tey moom moo jël yaay teg ko place yaay. jël yaay lépp lu war ci diggante doomam yaay daf ñu def te tam loolu tam dama fi ñaan jeunes yëpp képp ku nekk ci àdduna rek nga xam ne yaay te waaw yaay moom danga ko war a lépp lu mu bëgg danga ci war a loolu moo lay jàllale waaw mooy nga yàgg fi ak nga ñàkk fi yàgg waaw lu mën ta xew rek tey jii nii ku xool sa yaay buy wax sax dañuy xam ne li muy wax chaque jour si dënnam la koy waxee waaw di wax ne daal fi yow suñu yaay nag ñu lay dénkaat suñu bopp di kontaan tamit bu baax a baax si ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom di ñaan tam yàlla la fi. yàggal la fi wéyal say jot. lépp loo bëgg tam suñu njaboot def lii. yàlla na ko def. waaw di wax daal am na tàmbali mais amul yëpp yenn kaay. waaw. jërëjëf loolu loolu am na na solo. loolu loolu sax foo jaayee si. am na solo ba pare rek. ay jërëjëf ñu nekkal fi nga xam ne moom mooy Ndongo Lo Show bi muy amaat tey ñu nekk ànd ak ñu ñëw si fi nga xam ne moom mooy Yaye Assane Diop bi nga xam ne tey ñu ngi tudd drapeau bi ginnaaw bi ñu leen félicité bi ñu leen jàmm drapeau mu jógee tey lu yëg tey ak kàddu yi nga xam ne ñu jërëjëf sant loolu yi nga xamante ne dafa am lu mu doon sant yàlla ak sant ndax lii rek dafa rëy bu ñu yàgg reyoon cant bi sax bu amoon cant Assane ñaari at yëpp jaaw yëpp dañ ciy jël teew mais xëy na suñu borom xëy na ñu la sabab loo gisal ñu jaayante ba rayante jël drapeau te lu mu gëmoon la moom sama rakk la ñun la maa leen mag mais damay ànd ak ñoom ñu def seen morom ñu def ma ko seen morom xel mi nga am seen xel dafa sell ñoom sëriñ Abdou Kara sëriñ bi ñu doon baax dañuy émergé xam naa ne xale bu loxoom setoo mën naa bokk ñëpp Bousso doon jàmbaar boo xamante ni waraax la ñu moo xam ne moom moo doon bañkat doon champion boo xamante ni gën na drapeau jàmbaar. Assane Diop ñu jël sa drapeau bi suñu borom Assane xajal na ko maanaam loolu daal lañ ci amoon luñ ci wax. ku andil nii ku baax ku yiw ñetti caaxaan man dimbali nit te yàlla tax kenn du ko xam yàlla na bég na tey am na fa yàlla na bëgg na parce na soxla sër bëri moo dafa neex ma bëggoon na bare na na torop sax waaye xale bi gàllankoor yow mi fi ñëwee yàlla yàlla teg si yow di baax macha allah ànd ak ak yéen ak yéen bu kër gi tey yàlla teel a surtout jàmm surtout si gën suñu baax surtout ko dugg ci yëpp ah macha allah yow xol bi daal loolu macha allah. sant bu baax waaw ak waa Jokalante ñu jógee yëpp waaw di wax ne daal xam nga ñu ngi ñaan daal xam nga képp kuy doomu jullit rek xam nga fu waay nekk xam nga boo seetaan ne seen doom yàlla ko yàlla jëloon jëloon ko xale ko àjjana. waaw suñu yaay bi toog tamit yàlla yàggal ko fi trop trop. yàggal ko fi trop ñëpp tamit lépp lu ñu bëri yàlla ko yàlla defal. yàlla ko yàlla di nuyu bu baax ci mel suñu xam nga ne moom tamit suñu sawar tamit si liñ fi war a ñëw ndax démb ba léegi woo bëri si. ñu ngi teew quoi. sëriñ bi aussi tamit kontaan si ak Baye Cheikh. si déplacement mm-hmm. benn mag bu fii Tëngéej mooy Abou. soxna am na fi mën a ñëw fii mm-hmm. di wax daal lépp loo xamante ne daal wax nañ ko fi mu nekk loo xamante ne. suñu matal yi waaw lépp lu jub tam ñu xam ñu sant yàlla xam nañ ni yàlla mooy matal ñu boole kontaan nañu bu baax a baax ñaan suñu jaay yàlla ñu nekk yàlla bu baax a baax waa yàlla ak yëpp ñu ko ñu koy bi xam ñu la jóg bànq bi toog xam ne idi ñëpp daal ñu leen di bu baax a baax ñu jël dama ko tuddee ko ko quoi ñun tamit am seen fay laa laa ñu wax waaw ñu yàlla daal yëpp yàlla bokk ñu yàlla ñu ngi ñaanal yàlla comme li nga wax na sànq rek ñu wax ko sa kaw ñu gërëm sa kaw ñu wér ba bépp si àddina bi door a kontaan ci moom trop nag ndax yaraax ak tënkee différence la bu la neexoon nga jël sa garab kooku te danga maa woo sargalante moom wax ak man wax ma wax ma ñëw ñu waxtaan ñu doon lu waxtaan ak yaay yi ñu déggal ñu indi ma garab kooku yaa ngi dégg yaa ngi dégg xale bi la kenn gisati wax ñu la xel si daal yaa ngi yëkkatoo sa kaw nee na li ñuy wax yarax yëpp nag di leen ñaanal. Mm. ndaxte sama nijaay daf fàttali ko Maykor Samb maa ngi koy nuyu. ak Maykor sama nijaay la. waaw ñu ngi waa yarax ñu ñëpp ñu ngi sama nijaay yooyu di Maykor. am na yàlla def jàmm salaam.